mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër fooy fanaan mbokk yi mi ngi noonu kii ñu taxawal nii kooku mooy Siga Siga ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la jaale lu ñu bokk. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp man tamit maa ngi leen di jaale lu ñu maa ngi tudd Siga man rakkam laa. Euh, kañ ngeen euh, xam ni euh, Moussa mii ngeen nekkal kat fi mu ne nii feebar bi mu ngi koy tàmbalee man. ah moom daal affaire yi metti woon na si moom trop. mais nanguwul kenn xam ko. boo ñëwee fekk mu toog sax danga naan dara jotu ko ndax day ambiance waxtaan su paree nekk si leneen boo ñëwee di ko laaj mu ne la tane naa bu baax tane naa bu baax. te boobu mi ngi woyaale feebar mi koy woyaale mais nanguwul kenn xamal ko ko. Mm-hmm. billaahi ak ngoram rek. feebar feebar beeg euh, diiran bi ñu koy yóbbee ñaata fan la def wala ñaata weer. matul sax semaine. matul semaine matul semaine. bi ñu ko yóbbee hôpital mais mu ñëwoon woon fii. waaye njëkkoon na ko daaneel. non moom lépp fii rek la ko fekk. waaw. mais lu ko defoon góom la ko defoon bu ne ci tànk bi. non non kii la rek si tànk bi daal moo doon metti. Hmm. Mhm. Hmm. kañ ngeen ko yóbbu hôpital. mardi passé mardi passé. mardi passé kon su ma la déggee mooy ñeent fan la fa def. Mhm. Hmm. nan nga nan nga dundee dese bi. metti nañ si ñun trop. te xam naa ne dinañ wet trop. dinañ wet trop sax. déjà bi mu feebaree la kër gi selew. kenn waxatul mu mel ni foo xam ne kenn nekkatu fa. billaahi moom kay wéetal nañu dorop. billaahi ñëpp ni woon la. Eh, sama mag sama xarit. bu solee yére sax day ñëw siga noo gis ma ne ko yi sañse nga mu ne ma maa ngi dem estaat te ñëw. ku baax ku sori suñun barke Sëriñ Tuubaa amuñu fayam. ñu koy ñaanal fi mu tëdd yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla suuf sedd si kawam. Moussa Dioum kontaan nañ ci moom ci ñi non non parce que dañ nañu boo leen demee doo leen ko gis instant bi dafa soon parce que heure boobu bi ñuy dem dafa xawoon a kii torop mënuñu ko woon a gis. biñ la koy annoncé ci kër gi la la fekk. waaw si kër gi lañ fekk ñun ñëpp. Mhm. ñu toog waaw. Mhm. nan la lay def nga am frère mu nekkoon sa xarit mu jige fi tey bi su dëjëm mbooloo bi ñëw yëpp ak ak lu lamb ni ñëwee ba famille bi ngeen gisee lii ba ñu yëg-yëg ngeen. dañuy góorgóorlu rek ndax suñ papa mais ku ne xam ne métti na torop mais mënoo def benn geste na sam papa. billaahi ku koy xool ci moom la koy xool. baax na bëgg na ñëpp Moussa Dioum bàyyiwul ki xale bàyyiwul mag ñëpp la boole. amul morom ci àddina mosuma gis ku mel noonu. ñu kay ñàkk nañ. ñàkk nañ trop. monde lamb monde lamb bi mu bokkoon ñëw ñu gis fi champion yu bari tey jii yéen nan na kër gi maanaam lan ngeen gisee loolu milieu bi mu nekkoon tey jii mu jóge fi ñu ñu teew def seen témoignage ci moom. bëri kontaan nañ torop surtout maam Modou Lo kontaan nañ gis nañ lépp kontaan nañ Modou Lo ak ñoom Balla Gaye ak ñëpp gis nañ tamit magu Ama Baldé beek ñoom Ama Sène kontaan nañ ci ñoom daal parce que bu leen neexoon tamit du leen ci fekk waaye nag moom dafa leble moom heure bu xëyee bu nit nekkee ci safaan ak lu mënti nekk dina xëy sol ay yéreem dem lu mënti am ci àddina moom xeebalu kenn dara maanaam daal kooku daal spécial benn nit la boo xam ne nii xamuñu ko woon daal ba mu dem nii ku jege woon jege woon na yaayam trop moom kay moom moom dafa mel ni sax moom koo xam ne nii xool bi daal boo waxee sax moom mu jooy bëggul ku ko mere bëggul ku ko def nen boo bu la xoolee nga xool ko sax boo ñàngalee moo xam ne kii day ñëw ne la lan la lan la affaire yooyu noonu ku oyof xol la ñu gis keroog ko robijee ba ñëw keroog mu wax ndeysaan ba tur xéwal ngeen gis xam gis ngeen. dafa am fi ñu féete moo tax te xam nañ ne dina ñàkk toog rek kaf moom rek kaf ak Moussa Dioum doo bëgg a jug si sa àddina da ngay toog kafoore damay yéegal añ bi sum bala maa wàccaa dinaa fekk jigéen ñi añ ba pare man ma dem toog bu ko dee sama yaay naan ma bàyyil ñi bàyyil lii ma ne ko ñi mënuma leen a bàyyi man ñii rek laa am affaire yooyu noonu te mun a am yow bu boo bu ma xamul woon ne say mag lañ dinaa la juñ leen loo xam ne ni mooy loolu te lépp moom baaxam rek oyofaayam bu ko neexoon du ko fekk mais day kaf ñëpp ñëpp samay xarit ñëpp rakku Modou sama xarit la ñoom amitu baab ak ñëpp mais dafa mel ni ñoom la bokkal bu leen gisee day dem toog ak ñoom ñooñu daal billaahi moo tax ah, bett nañu daal Moussa Dioum daal ah manqué na ma fépp toog kafoore waxtaan beeg yooyu noonu comme ay morom daal. dina ñu gën a manqué nag. depuis bi mu bi demee tey muy ñetteelu fanam ñu koy saraxal yan kàddoom mooy gën a ñëw si xel bi si ñetti fan. <laughs> tane naa bu baax tane naa yaa jamais 203 barke Serigne Touba lii la wax message yaa ngi nii dinaa tane bu baax incha allah su may wax ak moom sa naan ko tane nga mu may envoyé di ma wax beneen xale bu góor boo xam ne nii dañ ma ko doon tooñee fii naan ma toujours pere ma naan ko ma man waxuma loolu damaa bëgg nga dem hôpital. dañoo ruusante maak moom su ma koy wax sax téléphone laa doon ko woo téléphone billaahi kunu sëriñ Tuubaa yàlla na ko yàlla fi mu tëdd daal yàlla na ko gënal fi mu jógee ak sëriñ Tuubaa kontaan nañ ci moom daal amuñu leen luñ koy waxal ah, nuñ muñ lekk te xam ne yàlla moom bu soxlaa ñëppay ñàkk nuñ muñ lekk doyloo yàlla lépp rek yàlla la yàlla la incha allah nañ am na benn xaritam boo xamante ni mu ngi ciy jàpp bu baax a baax. Mamadou Lay Lay kooku amuñu fayam kooku moom ak Oninga amuñu seen fay de amuñu seen fay barki sëriñ Touba Mbacke du lépp luñ mën a wax nag jërëjëf Faye. Nabou ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay bu baax. di la di la xamante ne maa ngi leen di bëggee bu baax a baax eh, Moussa moom ku nekk mën nga ko jaar sa bopp. parce que nit ku baax la man damay sawar pour ñëw ndax euh, mës nañu yàgg nañu taxaw mu may digal lu baax di ma xelal lu baax euh, mu mel ni que maa sax dañu bokk ndey ak baay duma ko gis mu ko te ñëw ma taxaw ci kanamam mu wax ma wax bu rafet Moussa nag dañ koy bàyyi ak yàlla sunu borom yàlla na ko sunu boroom xare àjjana firdawsi ku la gis xam ni euh, dafa dafa dafa la dafa dafa la jële fu sori ku la gis tamit xam ni fi mu ne nii sa am na lu muy yëg tey ji lan moo la gën a marqué ci moom. waa xam nga Moussa euh, man wax dëgg yàlla bi dépp ma di yëgee ne dafa de gaañu ba léegi dama dama dama sax feebar parce damay xalaat ma ak moom. Euh, lu baax liñ doon waxante di séq lu baax ndax euh, Moussa euh, bu ma fu ma masaan a gis rek woo na ma ne ma yow sama rakk nga waaw du waxtaan ak man ci ci ci loo xamante ne mu nekk loo xam ne xëy na mënoon na ko ci sax bañ waaye nag dafa nekk nit koo xam ne foo ko fekk boole lay def wax dëgg yàlla Moussa man xam naa ci moom lu bëri parce que du tey rek laa ko xam yàgg na mu nekk jëmm ju baax nag ndax Moussa bañ na ko ba programme bu ma fekk Moussa yaa ngi koy gis mi ngi bàkku di fecc di ñëw ci man mu ne am na lu bëri loo xamante ne moom eh, mënu ma wax lépp mais dama koy ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana yu firdaws ngeen dund loo xam ne doo programme bu ma am fii nii mbappat du am mukk te woowu ma ne ma bi yaa koy way loo doon def tamit di nga ko bàyyi nga ñëw parce que mbapat bi yow yaa koy woy damay def lu ma mën pour ma ñëw teew ci programme boobu ndax yëg-yëg la goo xam ne daf ko amoon ci sama diggante ak moom mu nekk nit ku baax sama frère la Moussa sama frère la man kon su bu gaañoo ñëw ma fi rek c'est parce que kon man goreew ma parce que parce que dund nañ lu loo xamante ne tey comme sama frère dafa may xelal lu baax daf may yedd di ma wax lu baax defal nii defal naa fu ñu gisante fu ñu gisante bi may mujjee gisee moom maa ngi koy way estaat mi ngi bàkku di fecc di ñëw si man boobu laa gëj a gis Moussa may ñaan yal na ko yàlla xare àjjana la gis xam ni euh, fi nii sa xol tooy na nekkoon na kenn ci yow loo koy ñaanal yal yàlla xare àjjana ñu ngi noonu xolam tooy na ndeysaan ku ko xam ku ko xamoon ko ak Moussa waaye ku ko xamoon it xam ni euh, Moussa lii rek la ko nit ñi mën a seedeel ndax mbaaxam ak yaram ak léppam kon su guddee fooy fanaan mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee